Ousmane doomam ji nag yàqu ci dara Maodo mi may wax nii daanaka mooy kilifaam ñuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu commencé si bismillah rahmaani génn si alhamdulilahi rabil alamin message bi may jox mbër yi nag lenn rek la gis nga histoire baaxul te yàlla may ne lépp nangu ko ba mu des xamee yéen ñi ñëpp ay doomu day ku si nekk yaay may sa borom moroom xaalis ma bëgg ngeen jàppante am fulla am fayda bu leen asan gën a gore teg leen ngor fulla ak fayda ngeen commencé ko ci bismillaahi rahmaani rahiim mu jeex alhamdulillahi rabbil alamin que le meilleur gagne asan nag ñu ñun ñu ngi lay delloo njukkal di lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokkal la ba nga ba nga yëg ko parce kii lu ko waay defal rek conseil des notables lébu nga ko defal il a fait pour Rufisque amul benn maas bu nekk Tëngéej bu mën a waat Mamadou Sy ñu di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla jox ko Tëngéej ci loxom bi jaayi rasulillah moom lañ koy ñaanal allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam mu ngi noonu Baye Mbaye kàddu yi rafet na lébu gétt lébu gépp benn bopp lañu man mii sëtu waasuur laa dëkk ca mbaaw fii rek la samay bokk ne kii nag sunu champion la ah. kii mooy mbiru Dakar ak ci Tafa Gueye 2 Tafa bëloo daaw la man waxuma ko amaana fii ci maire yi mën na am ay bàjjenam ne paa yi mën na am ay ndijaayam nefa fa wóoruma loo ko yóbbante bu bés baa moom nag xamula bu xamoon dugg ci man maa la xam man asalaamaaleykum mbokk maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant Bolo nag mënu ma wax si moom dara ndax man sama wax mënut a bëri quoi. Mm-hmm. yow foog naa nga xam nga ma. lay gis ndaxte lu tax sax bu ma Assane moo jël sama licence moo tax. Mm-hmm. waaye jour ba ñu may jox combat bi dafa fekk may finalu 3 millions. Mm-hmm. kon nag man làmb yépp sama làmbal lépp lu. di gërëm sama waa koñ yépp di di gërëm waa Ngoya Mbayaar waa Jongwel. waa Tongol waa Kaalir ñëpp maa leen di gërëm sama paa yi nag maa leen di wax ne leen teen ba xeer bi si teen bi ah dem leen ngeen daj foofu ngeen ñaanal ma si ndax xeer boobu kuñ fa ñaanal la dangay am ndam boo nekkee si dëkk ba di sàcc sax bu ñu bëggee nga génn dëkk ba dañuy daj la foofu ñaan nga génn dëkk ba ba loolu moom bu yóbboo na xam ne na dem entraînement rek. waaw jërëjëf. Moustapha Gueye nee na sama sëriñ sama soppe sama yaakaar àdduna ak laaxira Cheikh Moustapha Mbacké lañ ko tuddee. dama leen man dañ maa jottali rek. neex na ba noppi neex na ba noppi xam naa dañuy jëm ci grand combat bi. ñi dem ci grand combat bi war a dox ci diggante Badou Fall numéro 2 bu écurie Thiaroye ak Libidor 2 bu écurie Sénégambia gars yi ati ñu yëngal pare bi pare bi ñëw ci diggante. bàyyi doucement rek ah saa yi doo wax dara waaw booy yow tamit noonu la ci àgg comme dañ ne doo wax. bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sadi lisaani nawil janaani safil amaani wa subaraay asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu monsieur le maire nuyu Assane Ndiaye ak Seydou Diaw di nuyu waa Ngoundiane yëpp di. di nuyu sama papa sama yaay bi leen ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam di nuyu sama Sidi Sidi Sidi Fall di nuyu waa Goujane yëpp di leen sama si combat bi yëpp ma la waxoon rek lay waxaat yow booy yóbboo man ma sa morom man dama ragal sax sa kaw ay sapoor si am mbal munoo wax a wax a wax ba daanu ma ay sa kaw maa la man maa la ko dool du ma sa dama du sa morom man ñi may daan yaa ci gën a tuuti billaay boo boo dalee sama kaw ma daan la bu ma dalee sa kaw daan loolu laa lay wax waaw lu ci des nag damay woo bu jàmm mouvement Teranga moo ñi mu jàppale ma di sant waa Séoul yàpp lañ may jox chaque jour damay jox ba pare billaahi manquéwu ma dara demaguma mais kii moom ay waxam pare naa ci boo munoo wax a wax a wax bay daanu ma par force di woo bu ñaan yëpp nag le première mobilisation la soxla boo xam amul sax soxla quoi loolu jarul ñuy wax loolu ma ko wax dama ñëwaat ci kàddu gi. waaw rahim gannaaw ma sant yàlla di nuyu seen bi sant sama ñaari waajur sant waa Thiaroye Géej yëpp ñëpp sant waa Tëngéej sant Mamadou si sant euh, nu mu tuddee sa Assane Ndiaye ndax moom moom comme ni mbër bi doon wax sànq moom moom ma njëkk a yóbbu Bargny moom ma njëkk a yóbbu Bargny moom Assane Ndiaye sama premier combat ma daan jël bu rëy moom war a njëkk a yóbbu waat Bargny ngir grand combat bi nee na moom yàpp lay lekk man yebal mën bu duuf laay lekk man man lebu laa man mot waa kii kii bu taxawee naan mooma man wala bu dalee sama kaw ak daa xamul wa daa war a laajte ba pare kan mooy baru ba pare doog a wax loolu léegi nag ñaari mbëri dañuy taxaw nii ñu woo la président Modou bu amul ñu jël ci la bokk mu jàkkaarloog yéen waa Tëngéej jàkkaarloog notable yi Tëngéej jàkkaarloog jigéen yi Tëngéej jàkkaarloog jeunesse bu Tëngéej waxtaan ak yéen wala boog doon leen fàttali le but du mouvement le président Morsi bismillah bu nu sante yàlla julli ci Seydina Mouhamed ñu ngi gërëm suñu yëpp di gërëm suñu mbokk yi ñu fi fekk di ñaan yàlla yàlla yàlla jàmm defal jàmm ci réew mi defal na ko ba nu fekk combat bi le premier ci barke yonent yàlla Mouhamed di gërëm Mamadou Sy ndax bañ ko tuddee làmb dafa jëlaat làmb delloo ko tëggee ñan ñooy tëngeej bu ñuy wax tëngeej dañuy wax ne fukki ci yeeg ñaar ñan ñooy fukki penc yeeg ñaar le conseil notable de Rufisque ki ko jiite di Maodo Ngom mu alaat yi Ngalla Ngom ak Fatim Sembe mu ànd seeg santi ak Babacar Gueye kon dama ne tey Mamadou Sy bu jëlee mbir mi delloo ko Tëngéej wàcc na ànd ak suma jarbaat sama xarit sama rakk da Abdoul Aziz Mbaye mu ndey fëri jëng kon dama ne Tëngéej ji xewle le temps perdu ne se rattrape jamais Assane jërëjëf asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum waa Tëngéej asalaamualeykum waa conseil des notables lébu de Rufisque ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur sa sant di nuyu Assane di nuyu rassureur de grands événements muy Sénat assurance di nuyu waa TME di nuyu aussi waa TFM ndaxte ñoom ñooy partenaires yi tey jii nii ñoom ñoo jàpp ci combat bi ba mu toll fii tey jii nii ñun nag dañuy sant yàlla dellu santaat yàlla ndax dañ di ay ndaw dëkk fii nga xam ne mooy tëngéej lépp lu ñu am tëngéej lañ ko amee fi lañuy yeewoo chaque jour ñun amuñu fayu tëngéej làmba ji nag Assane ba ma ko tuddee muy drapeau bi dama ko jël tegaat ko si ñi nga xam ne ñooy kilifa tëngéej ñi nga xam ne ñoom la tëngéej am ñoo téye tëngéej tey jii nii ñun dafa am ci yoon bu ñu nekk ñun waa avenir Rufisque yoon boobu du yomb waaye dafa am ay mag ñoo xam ne ñun ñoom lañ jël dénk leen suñu bopp ndax xam nañu lu tax ñu def ko nit da ngay am kilifa man ñooy samay kilifa ci lépp lu ñu wax loolu laa wax lu ñu waxul sax loolu laa wax ndax jox naa leen sama lépp ku leen jox sa lépp jox nga tëngéej sa lépp ndax ñooy borom tëngéej may ñaan waa tëngéej ñu génn bés boobu ndax dinañ génn ndax képp koo xam ne borom nomb nga tëngéej jour boobu noonu di nga génn. képp koo xam ne tëngéej moo la ñor dinga ñëw ci bés bi ticket yi nag daanaka presque jeex na ndax ñu ngi ci ñun ñu ngi ci incha allah man xam naa ni mbër di def rek chaque semaine ñu ñëw te incha allah dinañ ci jàpp bu baax ndax suñu mbir la man samay mbir du échec ndaxte homme de doon ndaw nag macha allah waaye lu ma dugg rek damay ŋànk su ma jàppee rek tànk daggul du ba te bés bii nag incha allah man maa si jiitu lépp lu ci war ci wàllum mobilisation si wàllum dem stade dinaa ànd ak waa Guy Murit ànd ak waa Guy Murit fi nga xam ne falaa dëkk ñu dem stade incha allah ànd ak it waa Thiawlène ànd ak waa Colobane ànd ak waa lébu gi ànd ak waa Arafat ànd ak waa Tëngéej yëpp yëpp yëpp ñu dem stade réussir suñu bés boobu noonu may santaat Assane bu baax a baax a baax a baax a baax aw fayam moom moo ma njëkk a tuddee drapo làmb ci àdduna te l'histoire retiendra gis nga Assane nañ dem ba ci kanam doo rëccu lu tax nga tuddee ma drapeau bi nii may wax mbër yi da ngeen am sas bu rëy ndaxte bëri daa am fu mu toll ñu bëri daw Sénat assurance moo taxaw tey jii nii TME moo taxaw tey jii nii TFM moo taxaw tey jii nii donc ma leen di ñaan ngeen ànd ak yar jour boobu noonu ànd ak it dal ndax ay ndaw ngeen li nga xam ne mooy seen gagne-pain comme ni ko tubaab di tuddee da ngeen koy sàmb man sama liggéey laa gëm dama ko sàmm duma ko kafe du ma ko fowe duma ma ci sax ree donc yéen li nga xam ne mooy seen métier donc dem leen ci ak xel te surtout ngeen conscientiser supporters yi ñu yem seen place mooy supporter moo leen fa indi nañu ñëw supporter mbër mi bu daanee ngeen dem seen koñ. léegi seex la awma fenn fu ma far. man Tëngéej moo ma ñor te it moo ma ñor donc muy ku dëkk Pikine ku dëkk Caaroy euh, ku dëkk Yeen ku dëkk ñëpp laa yemale ñun ñëpp ay sénégalais lañ waaw maa ngi jeexal nag di leen sant di leen gërëm yéen waa Tëngéej man awma seen fay Mamadou Sy amul fay waa Tëngéej lenn laa mën a fayee waa Tëngéej mooy liggéey liggéeyal waa Tëngéej jéem a xar kanamu Tëngéej waaw jërëjëf. jërëjëf président Moursi kaddu yi rafet na yiw na te tey na lébu gi cër rek la bëgg magum lébu ku ko cërale moom nga ko te département mooy département de Rufisque mag ñee fi nekk. dina tàmbali jaraaf yi ndey ji réew yi fere yi ak yooyu lu baax yi te bu ñu gisee li nga seq ak notable yi rek gëm nañu ne que loolu nga seq tey ku fi chef coutumier wala chef religieux fii ci Rufisque kon nañ lay ñaanal bonne continuation dëkk bi nga ñëw tey mooy dëkk Ngalandu dëkk bi nga ñëw fii la grand maire de Kourou Cheikh Baye kon tant ñu jaarul ak succès ba ñu amoon. bu ko raw yàlla na nga ko am sànq dama la wax ne nous vivons dans un air de jeune tu es jeune tu es un jeune ambitieux et intellectuel donc dañ leen ñaanal nga dund ba yàlla yëkkati dëkk bi teg ci sa loxo yàlla mën na ko yàlla boo koy ñaan da nga koy ñaan ndax ñaan nga lu mu rëy rëy ci yow ak ci bët nit ñi tuuti fa moo kon nag ki waay jël kàddu gi mooy le grand promoteur le promoteur du Bawol taalibe Serigne Saliou Baye Serigne Saliou Assane Ndiaye mon ami à vous la jullit yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi sant sëriñ Touba bu wér di wax jërëjëf Serigne Saliou Mbacké ñu ngi nuyu mbooleem ku nekk fii di nuyu Mamadou si suñu xarit suñu doomu ndey ñu ngi koy jaar bu baax a baax a baax maa ngi nuyu képp koo xamante ne bi yaa ngi si jataay bi maa ngi nuyu Khadim Thiam bi nga xam ne. lépp lu may def ci côté bi ci loxoom laa koy teg moog Ablaye Ndiaye bu ab Ablaye njaay sama xarit la sama doomu ndey la maa ngi koy jaar bu baax a baax du nuyu sama rakk Cheikh Diaw bi ma àndal nga xam ne combat bu taxaw rek moom moo koy monté maa ngi koy gërëm bu baax du nuy Bourgéwén maa ngi lay gërëm du nuy waa CNG bi nga xam ne fun jëm ñu ànd ak ñun di ñu jàppale ci liggéey bi paate teewal leen fi dëkk ci dëkk bi Pathé ñi ngi lay char bu wér a wér a wér mbër yëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu Badou Fall ak euh, Liy Coor di nuyu Tafa Gueye 2 di nuyu mbër yëpp vraiment lépp lu ngeen waxante man def ngeen ko ni ma leen di jàppale noonu ngeen tourné jàppale man lu nu raw noonu maa ngi leen di gërëm baax a baax di wax Mamadou man dama dugg ci dëkk bi muy xale muy mag ñépp na ma Mamadou kon yàlla dogal na yow la li nga xamante ne bii nag ñëpp nee nañ yow la yàlla na la yàlla suturaal nga eggale noonu te nag ñun duñ jàpp di bàyyi buñ xasee ne yow la yow la suñ xasee ne du yow mënoo fexe ba mu nekk yow ñu ngi ñaan yàlla nag suñ diggante yàlla def ci jàmmoo lépp luñ la yéene rek dal nañ ko won Sénégal yi lépp luñ la mën a jàppale danañ ko def incha allah rabbi maa ngi gërëm nag ñi nga xam ne ñoo ma dooleel jàppale ma ba événement yu mag yi may tëgg ma koy tëgg muy waa Sanar assurance mm. Maguette Seye maa ngi lay gërëm di la gërëm ngërëm loo xam ne xam nga yow xam naa dañu dem ba séqatuñu làmb yàgg yàgg na su ma dara arrivé ci sensé rek Maguette Seye taxaw donc maa ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal ci barki Serigne Saliou nga am gudd fan an wér képp koo xam ne yaa ngi jàppale làmb jàppale Bawol production na nga dem abonné Sanar assurance parce que affaire bi ñii la li ñuy def wóor na te tegu na ci yoon te sell na di gërëm nag waa TME sama xarit ay dara mbay jiite ko monsieur Wan maa ngi lay gërëm bu baax a baax am naa mbégte ci yéen ñi ngi nekk Médina rue 1 angle 6 lépp luy matériel électronique soo ñëwee foofu di nga ko fa fekk di gërëm nag sénégalais yëpp di nuyu waa Bargny waa Sébikotane waa euh, Kër Massar waa yi ñëpp di leen wax na bés bi le premier mars la lépp lu war ca stade ba dinañ ko def dinañ monter ay turbine ci biir stade bi bàyyi ak xale yi ak amateurs yi am euh, turbine bi incha allahu rabi dinañ ko taaral nañ ko daan def sécurité bi dina mat bu baax a baax comme sama làmb day am sécurité ku bëgg jàmm boo ñëwee di nga ko fekk ku bëgg leneen nag boo ñëwee gisee cuun rek lépp lu war ci bis bi pour sécurité képp ku ñëw ci bis bi nga am jàmm dinañ ko def maa ngi gërëm waa TFM samay partenaire di gërëm waa Bawal TV di wax sénégalais yëpp di wax képp koo xam ne yaa ngi dund làmb soo ko xoolee ci Bawal TV di nga ko fa fekk suñuy événement nga fa lépp luy suñu communication dinañ ko fa def ñu ngi leen di gërëm di gërëm euh, caméraman yi ñoom Kader ñoom Pël xam nga ñëpp rek képp koo xam ne yaa ngi liggéey ak Bawal ñu ngi lay gërëm di wax Mamadou kontaan nañ trop yàlla nañu yàlla suturaal la la la première ñu dugg ci jàmm mu jeex si jàmm. kon nag gan yi mbir maa ngi noonu ñu joxante dig daje ba la première yéen ñaar nag ku ci nekk wax nga jox sa morom ñu may leen ngeen wootee ñu may mbëri ñu wootee ku ci nekk rek ñu tëj. waaw <coughs> waaw kon di woo waa génération 2000 yëpp yàgg nañ ma taxaw maa leen di woo di ko dalee ci président Touba Diop Serigne Thion ñoom ñëpp waaye ma di woo suma fan secret di doon numéro 2 gis naa coono yi ngeen di daj si combat bi di woo suma waa Diofior ñoo ñëpp suma gars yi nekk Diofior maa leen di woo waa Sandiara Ngoundiane yëpp ak li ko war Medina bi maa leen di woo li ko dalee ri 5 ñoom ñëpp waa 23 Medina bi yëpp woo naa leen si combat bi xam nga di woo leen famille di woo waa Njaga Ñaaw waa Sandook ñëpp gis naa jàpp gis naa ñaan yi maa leen di woo jàpp si combat bu baax a baax a baax xam nga di woo mbooleem fans club bu nekk ci diwaanu Ngoundiane rek xam nga Bawol 100 pour cent bi di woo ñëpp bàyyiwuma kenn di euh, suma xarit eh, Omes maa ngi koy woo baax di sant gan mu àndal ñoom laay père Mangoni Oma Fayam laay sama doom day zaal ñoom ñëpp di woo mbër yëpp di fi door bàyyiwuma kenn di woo Ngoundiane yëpp jaari ngeen jëf. waaye ca Badou Fall wootee. waaw maa ngi woo waa Thiaroye gépp li ko daggee Yaraax ba Mbaaw maa ngi woo waa Thiaroye gépp di woo samay mbokk fépp fu sama mbokk nekk nga yow jàpp ci combat bi te xam ni grand combat la danoo war a def lu bari suñu maire nag ñu ngi koy woo si combat bi njëkk a nga ñëw jàpp si bu baax nga jàpp si kaar yi daan nga si jàpp sax nga gën sama gars yi ñëpp maa leen di woo ak ñi sama papa yi leen waaw ba si sa Cheikh Daouda Moussa Fall ñëpp Samba ñëpp maa ngi leen di woo nag waa Thiaroye ñëpp ci aw ñu jàpp def ko lu jërëjëf Badou Fall Tafa Gueye de nee na mu ngi woo waa West Foire waa Nord Foire Sicap Foire waa Mar Sëñ Fallou ñëpp ci bés bi waa kafe kon gars yi di leen jox dig daje ba premier incha allahu drapeau Mamadou ak Assane Ndiaye bool production